mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci bi limamet point com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñu topp comme à chaque fois dañuy ñëw ak yéen ci actualité bii nag di information de dernière minute ñu ñuy xamal ni benn humoriste bu nekk fii ci Sénégal daal di fii siiw lool moom moo am jàngoro ji nga xam ne moom mooy coronavirus loolu nag di benn ni ki mooy humoriste boobu dafa nekk fële nga xam ne moom mooy réanimation maanaam feebar bi dafa daal di metti ci moom daal di ne wàll cinq personnes yoo xam ne nekkoon nañ en contact ak moom ndax xam ngeen ne li nga xam ne moom mooy jàngoro ji di coronavirus dafa gaaw a wàllee lii nag mi ngi xew ginnaaw bi mesures parce que président Macky Sall yéen a ngi gis ne daal dinañ allégé mesure yi nga xam ne jëloon na ko ngir xeex jàngoro ji nga xam ne moom mooy coronavirus bis bu ñu gis kaa yi nga xam ne moom mooy kaawu corona yi di gën a yokku loolu nag di waral ba population bi daal di tiit loolu ci mesure yi nga xam ne daal dinañ koy allégé ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus mais information bi mooy benn humoriste boo xam ne ràññeeku na fi nga xam ne moom mooy Sénégal moom moo daal di am feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus bu mujjee fële nga xam ne moom mooy bu leen fàtte à chaque fois di continuer di topp limametti point com ngir am information cloche de notification dee ko bés moo leen di mën a permettre ngeen mën am xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez-vous benn ñoon ci biir limametti point com ak yeneen actualité